mom mi nga xamé ne mo ñu baxé wéru koor ci fukki wér ak ñaar ci at mi mu jël ci wenn wér wax ne mom lañ cey def lépp mom kenn kessé moko mom te kenn du ko fay kudul mom mu wax ñu tamit nan lañ koy woré lan la wax daf na suumu li ruyatihi وأفطر لرؤيته فإن غم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما woor leen parce que da ngeen koo gis wari leen da ngeen koo gis su fekkee ne nag da ngeen dem ba am ñaar fukki fan ak juróom-ñeent di seentu weer wi mënu leen koo gis ndax lëndëmuk asamaan si yàlla nee na matal leen fanweeri fan li nuy def ci sharia lan ko teg xëccoowuñu wuñu te nag dëkk bu nekk dafa am ñoo xam ne ñoo amee seentu weer wa fii ñun ñoo yore seentu weer wi keneen yoru ko nun noo ko yor te nag su fekkoon ne amul lu ci yàlla wax yonent bi wax ko ci ñu mën a def leneen liñ ñu wax la ñu jëfandikoo lii ak farlu du ci am leneen du ci am texte la te nag dëkk ña fa mën a am jumaa mooy ña fa am ay pénc ku fa amul pénc loo fa am lu mu rëy rëy jàkk la yaa ngi may dégg bu baax ab dëkk lu fa waay am te dëkkuloo fa amuloo fa pénc loo fa am lu mu rëy rey jàkk la tudd parce que jamaatul muslimin ba nga xamee ne ñooy fal ilimaan doo ca bokk te boo bokkul ci jamaatul muslimin bay fal ju imaam mënoo bokk ca la ñuy wax ak lu ñuy weddi kon lépp lu ñu def ñun ci teg texte lañ koy teg moo tax diine wiiruwu ñu ci ma sàmb wiiruwu ñu ci ma demb li ci yàlla wax rek la ñuy jëfandikoo su moo dee royatihi woor nañ parce que gis nañ ko gisuñu ko matal nañu fanweeri fan weer wa feeñ na woor nañu woor nañu ñaar fukki fan ak juróom-ñeent séentu nañu weer wi gisuñu ko dañuy mottali fanweeri fan moo tax nu mottali nun nag fii noo fi waxe loolu amul keneen ku ci mën a wax ci loolu lu ñun kon loolu mooy li nga xamee ne moom lu jëfandikoo texte la du suñu xelaat par nu tamit farunoox kenn yàlla lanu faral kon yàlla moo santaane loolu def nañ ko yàlla moomu nag moo baaxe weeru koor mu nekk weeru yéeme mu ne moom rek moo ko moom waxul kenn gardeel kenn bu kenn ku nekkee nangoo ne yàlla mooy yàlla muhammad yàllaa ko yónni ci nit ñi la wut wenn weer ne bu ñëwee bu kenn lekkati bu fajar xare ba bu jant bi sowee te it mat na leeral koor dafa gàtt fan lay commencé bu fajar xaree fan la yem bu jant bi sowee ñu ko nuróole tey waxtaan te ñu am nit ñu maandu ñuy wax naan weer yu feeñ na ci loolu lañ mën a sukkandiku pour def loolu waaye nag diw de nee nañu weer yu feeñ na rek kan moo ko wax Maodo Sylla rahmatullah alayhi dafa andi dafay tuubal nit fii waa ji ne ko ndax man nga ma ndax yàlla dina ma baal li ma fi def duma ko fenal de dama koy fekki ñu ne ko lan lan nga def mu ne dama leen wooriloo ñetti yoon te duma jullit ndax yàlla dina ma baal loolu te nag dañ wax ne bi ru'yati ni ñaar ñu wér ñu maandu ñooy tax ñu ne weeri yi feeñ na ñu wari mais du du golo bu ne weeri yi feeñ na rek ñu wari déedéet parce que ñi yàq dañoo bari te ñiy xeex diine kenn xamul nu toll léegi te nag médias yi bari ñu autorisé ku nekk loo bëgg nga def ko kon foofu la affaire bi nekk. su fekkoon ne dañuy xool ñi nga xamee ne ñoo yoreel diine ji ci fii ñu laaj leen ñu wax leen parce que soo demee Égypte wala fu mu mënta doon kan nga xamee ne mooy wax ci weeri feeñ nag feerul al muftil jumhuri moo cay wax kooku mooy kan mooy iliman ba moo naan weeri feeñ ne ñu wari weeri feeñul matal leen fan weeri fan ñu matal fan weeri fan muftil jumhuri mu am droit wax loolu fii nag ku mu neex rek nga ñëw taxaw ci rajo ne weeri feeñ na loolu am na ñoo xam ne seen seeni responsabilité xam naa dinañ ko jël waaw parce que du ku mu neex rek nga ne weeri feeñ na dafa am ku ñuy laaj ndax weeri feeñ na mais du ñépp lañ koy laaj te du ko ne mooy wax ci weer wi feeñ ak weer wi feeñul te nag rajo yi ku leen neex rek ñu woo rek na ko waxal ñu ci nàngam c'est pas du noonu lu ne dafa am ñu ko yor ña ko yor la ñuy woo wax ak ñoom ñu wax li ci xew mais du ko mu neex rek nga won nit rek mu sol mbubam rek ñew tok parce que bari na fi ko xamé ne ki la nek ci bop lakhdari lay jëfëndako أكل أموال الناس بغير طيب النفس أو بالدين ولا نغم بوبو دين دي لك نيني تناك دفا باري ني مبو دين دي لك نيت ني نيو باري لغي غمبو ني يالا كون يي نيغا خامي ني يالا يالا دنك يي نين يور ريومي ci wàllu àddina fa ngeen di wax ak ñi nga xame ne ñoom la yàlla dénk réew mi ci wàllu diine dénku ko ñëpp dafa am ñu mu ko dénk bu ñépp mën a jàngat dafa am ñu ñu tànn dénk leen ko ñañ ko dénk lañuy waxal duñu wax ak ku ne kon yàlla moomu moo jël wenn weer wii ci fukki weer ak ñaar lan la ciy def nu waajal leen ci seen bopp pour fukki weer ak benn yuy ñëw nan ngeen koy dunde soo xoolee koor min al arkaan islaam ci ponki lislaam yi la bokk ponki lislaam juróom la ponk bu ci nekk dafa am lu tax muy dox koor pourquoi am le pourquoi am ku ne xam na lu mu doon ñii nga xamee ne yàlla baaxe ne leen ñu am am man-man dinañ xam ne bu ñu wooree ba ngoon ndeket ci réew mi am na fi ñoo xamee ne ñi du ñu lekk duñu ñu naan ñooñu bu ñu xamee mettit wi nekk ci wooru koor dinañ war a mën a dimbali ku wooroon te amul te yàlla tax te nag aada dañu wax ne aada sayyi'a moom lañu war a dàq aada bu ñaaw moom la lislaam dàq waaye aada bu rafet moo mag lislaam bi lislaam ñooy da koo saxal est-ce que dégg ngeen bu baax aada bu ñaaw ak aada bu rafet moo am bi aada bu rafet bi lislaam ñëwee fekk aada rafet jek jekk ànd ak moom daf ko saxal doon daan sëy bi lislaam ñëwagul bi lislaam ñëwee li ci rafet li ci ñaawoon ci sëy yépp la ne bu mu amati leneen ak leneen ak leneen ak leneen daanañ sol yëre mais mu wax ñu fan fan la awra góor commencé ak fan la fa awra góor jigéen commencé loolu lislaam a ko wax mais bu njëkk xamuñu woon nan la ndax loolu ñu ngi koy jëfandikoo wala déet loolu la ci lislaam soxla lu ne lu ne la mu waxoon lu ne ñu xool la ca gën ñuy jëfandikoo loola ba tax na yàlla dimbali nañu ñun ñépp woor nañu xam nanu li nekk ci koor dimbali ngeen ay nit ba sonn ci biir koor gi moytu ngeen ba sonn ci biir koor gi te nag koor ku yaakaar ne gémme astafurlah lekk rek la eh, eh, eh, ja xamagu xew li li gën a tuuti ci lii woor mooy ñam wi nuy lekk ku wor waroo déglu lu ñaaw waroo gis lu ñaaw waroo jël loo moomul waroo dox jëm ci lu ñaaw te loolu moment bi nga wooree ñu ngi ci amee farlu farlu di moytul sa kéemtalaayu kàttan yaa ngi jàng alquran te nag ku bëgg a jege yàlla li ñu wax mooy jàngal alquran ku jàng alquran ak jege yàlla lu tax parce que mooy waxam ku jàng wax yàlla jege ko ñu ne kon ku bëgg a jege yàlla na nga bari looy jàng alquran moo tax weeru koon ñu bëgg nit ñi jàng alquran lu baree baree baree bare loolu def ngeen ko lu baree baree bari conférence ngeen def ngeen lu nekk ñu ne nag ndax conférence yeeg lu nekk yooyu ñu doon def ndax ci weeru koor rek la war a yem su fekkee ne ci weeru koor rek la war a yem weeru koor dee na koor dee na déwén lay ñëwaat kon ku fekkoon ne koor rek ngay jaamu yàlla kon xamal ne sa jaamu yàlla jéex na te yàlla mi nga xamee ne moo nu bind ñun ñépp waxoon na alastu bi rabbikum ndax duma seen borom ñu nangu ne ko yawa ah, mu ngi fi du fi jóge ba mukk te nag ku bari sutura la nun ñi fi ci ci nun matul nun ñépp matadi koo xool rek qualité défaut la àndal ba tax na nag ne qualité ki défaut nga soo bëggee dem sori dangay ngay jàpp ñépp ne yow ni nga mel la ñépp mel waaye nag am na ñu tanante am na ñoo xam ne yàlla moo leen di seppi ci biir ñépp ne leen yéen la ñooñu mu seppi ci biir ñépp ne leen yéen la ñooñu dafa am lu leen war ci seen digganteek seen boroom seen digganteek nit ñi kon sangu ngeen ba set sol ngeen lu rafet xeeñu ngeen génnee ngeen seeni azaka bi ngeen laan ñëw yàlla tabaraka wa taala moo nu digoon la mu nu digoon nangul nanu ko yàlla nanu ko muurloo li ci def ma nag mooy lan ñun ci suñu bopp dafa am lu ñu sante dañ ñu wax ne nanu ragal yàlla yàlla mi nga xamee ne moonu moom ba pare nag mu santene nu taawanu ala ma fihi xayrun lakum yéen nit ñi yéen sénégalais yi dimbalinte leen ci loo xamee ne seen njariñ yéen waa sénégal moo ci nekk ak lan seen texe réew ak lan kenn ku nekk am loo jàpp lutax parce que su fekkee ne ñii dañuy gas ñii du suul kamba du am su ñii di gas ñii di suul kamba du am te ku fi man lépp amul kenn dong mo man lépp muy yàlla est ce que moom mi man lépp nun ñii ñëpp kenn ku ci nekk li nga bëgg lépp defal na la ko parce que moo xam kenn ku ci nekk lan moo la mën a jariñ ëllëg ak loo xam ne boo ko amee du tax nga beewu kenn ku ci nekk mu xool loola tegal la ko léeg-léeg nga bëgg mbir mu xam ne li gënul ci yow mu bañ dàqal la loola indi la leneen mu nekk njariñ pour yow waaye nun nag li nu man mooy kenn ku ci nekk sa yéene nga am te yéene nag ki ko am bu defee la mu man wàcc na du dëgg وحافظوا ala aadabi diinikum beneen bi mooy lan nun ñoo nangu na ay jullit lañu kon suñu teggin yi nga xamee ne moom la diine joxe ne kuy doon jullit yii jikko nga war a am nanu fexe nun ba ommatoo ci diine ci teggin yooya parce que mooy li nuy jëriñ nee na fu ñu toll nañuy bàyyi xel yàlla ci sunuy njaboot fu ñu toll nañuy bàyyi xel yàlla ci sunuy njaboot parce que sunuy njaboot bu ñu xoolee tey ñi fi nekk ñun ñii man mi taxaw fii di wax Omar Lamine Dieng sama way jur la woon le président Macky Sall mi toog Senghor maam la woon ci moom ana sengoor dem na ana la Lamine Dieng dem na ana Maodo Sylla dem na ku fi dul dem amul kon mag ñooñu ñu amoon ñuy mag ñoo xamee ne ñi ñu baax lañu woon fokk ñuy sukkandikoo ci seeni jëfandikukaay yañ daan jëfandikoo pour dem Papa Lamine Gueye daana wax ne tudd tur ñaaw jikko la Papa Lamine Gueye moo ko daan wax homme politique la woon

da ngeen bokkul gisin yow da nga gis ne nii lay baaxee moom mu gis ne nii lay baaxe kon li muy dimbali mooy ñu xam ne bu ñu fas waxee ba bo bosu diwu sax nañu xam ne bu diwu la ñépp bëgg bosu diw bi ñépp bëgg na ci ñépp jàppale diwu moomu pour mu mën a yegg fi mu jëm parce que moom kenn rek mënul dem Maki tànnul boppam sénégalais yépp ñoo ko tànn biñ ko tànnee ba pare nag parce que ku majorité bi tànn yaay yaay moom kon moom lañu tànn tànnuñu keneen kon moom mu ñu tànn na xam ne responsabilité yor réew mi newul ci ma sàmba newul ci ma demb ci ay loxaam la ne te bu ëllëgee duñ ko laaj kenn moom lañ koy laaj waaye nag jiite na doo wax ak kenn yàlla te yàlla santewu ko kenn وساورهم في الامر واختان الله نيب دغل الخيلات نيب واي نك واذا عزمت فتوكل على الله سو غيسين ياو لي موي لي لاي ارانجي موي دوخل ليغا بوج ويرول سي يالا ديف ليغاي ديف مو جال واذا عزمت فتوكل على الله ويرول سي يالا باسكو جولينغ تي مولا تان بو ويرو سي موم ديف ليغاي ديف يالا نتياند دي parce que yàlla kumu fal dina lay déey nan la legal kumu tan rek déey la kon mo la tan dina la déey fek yaangi wëru ci mom nak waye so ko mag maag diw mu toog xaat diw mu xam lu mu man mom rek fa ida azamta fa tawakkal ala allah soo gisee ne lii la te yow lii nga gis ne moom la te yow lañu dénk wéerul ci yàlla def mu jàll ñi nga àndaloon ñëpp ku nekk daa bëgg mais yow la yàlla tànn ay du yéwén pexe yi jeex waaw ay du yéwén pexe yi kon ku ñu dénk doo rafet njorto cent pour cent ah rafet njorto baax na mais cent pour cent baaxul waaw kon loolu na ko def ci sa bopp njaboot gi ñun lañ ko dénk ak yow te gis nanu ne njàng mii fi mu nekk dutulum njàng te war ngeen cee wax indemnité warul mën a tax kenn gerew indemnité warul tax nit di grève c'est pas normal waaw te dañu wax ne laa takun ratban fa tuxsar wala yaabisan fa tuxsar wow korong baaxul kilifa dañu wax ne du wow korong mais du tooy xepp ñu ne lan la kilifay def day lax waaw sama compagnie gi foog ñu dóor leen yar ñi jubadi comme man foog dañu leen di duma parce que am na koo xam ne kenn fekk dumawuñu ko du nite am na ñoo xam ne dañu wax ak ñoom ci ci jàmm ak salaam parce que am ñu ay sa am nañ savoir vivre mais ki amul savoir vivre dañ koy duma parce que duma mooy tax mu mu dellu si xamu leen ne kaso nit ñi dañ foog ne kuñ fa tëj rek dañ la dañ la toroxal non mooy néegu man maay kan nit koo xam ne dafa dematul dem ba xamatul mooy kan ci mbeewande foog ne lépp man na ko lépp sañ na ko lu mu def dara du ko ci fekk kooku la ñuy jël yóbbu ko ci kaso tëj ko fa pour moom mu xam mooy kan kaso néegu man maay kan la yóbbuwuñu fa kenn pour yàq la ñi war a baax bu buñ génnee kaso dañuy yokk ku war a baax su duggee kaso day génnee day xam mooy kan li muy ñaan ci àddinaam yal na ma yàlla mu musal ba bu ma delloo di fale waaye am na ñoo xam ne buñ fay jógee dañ naan gaa yi eh, sans place bu ko kenn jëlaa ah, maa ngi ñëwaat mais kooku loo ci man moo taxoon charia nee na am na ñoo xam ne kenn waru leen denc dañ leen war a rendi parce que mooy ñooñu koo xam ne mënatul baax bokkatul mais waratul bokk ci société bi waaye nag su fekkee ne ñi nga xamee ne ñoo yor dañu baax ba mu ëpp baax bu mu baaxul góor gi bul baax ba mu ëpp de ñun santewuñu la loolu ñun lebu yi te nag léewoog tukulóor ñoo bokk ndey ak baay ak séeréer ak joola ak ñëpp kon ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay Sénégal goon ñëpp bokk ndey ak baay du dëgg parce que boo joola joolaa yi seen maam mi leen meññ ak maamu joolaa yi leen meññ ñaari jigéen lañu kii jur séeréer saafeen yi kii jur joolaa yi kon fii dama gis ne liy defar réew mi te président commencé na ko yàlla na continuer mooy lan kenn ku nekk fi nga dëkk nga yëg ne yaa fi dëkk États-Unis d'Amérique gouverneur bu nekk fa mu dëkk mooy gouverneur ba mooy koy doon loolu fexeel ba mu am fii nit ñi kenn ku nekk nañu fexe ba li nga moom nga yëg ni ci nga ne waaye boo dëkkee ci dara yëguloo ne yaa nga ca ku wax ne dina defaru dalay nax waa Casamance nañu yëg ne ñooy waa Casamance mu yomb waa Kaolack yëg ne ñooy waa Kaolack région bu nekk ku nekk yëg ne fii ñun la parce que rek la ñuy defar réew mi mu dem bu dul loolu du dem fenn su ko defee nag ñiy gouverner ay superviseur la ñuy doon lan la ñuy def kenn du tooñ kenn ku bëgg dal ci kaw kenn ñu jël la duma la te it ku ñuy defar fa ñuy defar bu ñu waxee laan defaral nit ki ñuy defaral dañ koy